parce que ñu bari euh, yu bari. comme que ñu ngi doon xaar le cas Lamine Camara moom mu jël euh, jëlal nga xam ne meilleur joueur CHAN bi euh, def compétition bu am dolo am bu solo ci u ñu bari ñu ko doon xaar pour mu bokk ci li nga xamante ne moo di sélection bi yow bokk nga si ñu ko doon xaar. man si suma philosophie je demande à tout un chacun d'être patient. et sa philosophie. et attendre son tour parce que je pars du fait. qu'on est des êtres humains avec nos forces, nos faiblesses. Nul n'est indispensable, mais tout le monde est utile. Mmh. Bon, Lamine, il est encore jeune, mmh. il a une marge de progression. Bon, tardeegul ci dara. Il n'a qu'à attendre son tour. Il n'a qu'à attendre son tour. D'accord. Et ça viendra s'il continue à travailler. Mmh. buñ ko dugal ci lu mu warul dugg. d'accord buñ ko solo mbubu boo xamante ne da ko ëpp. voilà